jël ci li nga gën a bëgg joxe ko ngir yàlla waaw def te yàlla tax tabaski dellusi na social Touba ca kanam taxawati na waxtu tabaski jot commission sociale bu Touba ca kanam dina dajale yére yu bari jox ko taalibe Serigne Touba yi nekk Touba te yittewoo ko lool képp ku am yére bu mucc ayib rawatina yu bees tàq mbaa dal te mën koo solal taalibe yi Serigne yi woo nanu la bu tuutee bul ko xepp waaye bu bëree yit bul ko yéem joxe nag la ca gën mooy la nga gën a bëgg nanu ànd ak waa social Touba ca kanam solal taalibey sëriñ bi te yàlla tax jëre jërëjëfe sëriñ tubaa